Jawaze bu TV nañ wax ak Jawaze. jërëjëf asalaamaaleykum mbokki Jawaze ñu ngi leen di nuyu euh, comme ni nga ko waxee rek euh, ginnaaw biñ ko jàppee jàppaat ko ay gàllankoor ne ci vraiment ñu koy regretté di di di bu baax a baax ASC yi aussi. ndax bëri na ci ASC yoo xam ne déjà parfois defoon nañ seen dépense ba pare waaye eh, ak yàlla lu mu dogal lu ñëwul nag suba yàlla dogal nag tey jii xëy na tey la ko yàlla dogaloon CNP bi ñu démarré ko lu ah, mu démarré aussi vraiment eh, ñuy ñaan suñu boroom rek. defal ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabil alamin ndax nu mu dooree nii kat wax dëgg yàlla dal na xel ndax aussi gis nañ déjà c'est très fair play euh, l'équipe championne yaakaar naa moom la ñu gagné léegi bu but à zéro mais ku ne gis na euh, sentiment bu mu bu mu

ñun dootuñ fi nekk di kar kenn dootuñ fi nekk euh, di di di di ak kenn parce que tamit ñun ñëpp ay texte moo ñu moo ñu moo ñu tënk texte yooyu nag tant que ñu ngi ci ah na ku nekk jël responsabilité ah ñu xam ne dañoo war a foo ci jàmm comme jobaas nag suñu jobaas la dañoo bëgg au moins nit ñi namoon nañu lii parce que foo jaaroon nit ñi interpellé la ah fu mu nekk nii mbéy mi jeex na amatuñu fu ñu dem ngoon kon loolu ñu démbalee vraiment ngeen ubbiwaat seen seen kii ndax nit ñi fa aussi fa la ñuy gontu pour mën a seetaan loolu nag boo leen xañ boo ko xañee nit ñi vraiment yaa ngi leen di xañ lu rëy kon aussi ASC yëpp ñu ngi leen di lancer waat un ñu gën a ànd ak fair play ak sportivité mbir mi nag ñaar rek moo ciy am soit te ngay gagné wala ñu gagné la wala mu match nii kon booy boog muy ñett ñu comme championnat lañ nekk mais buñ demee ba éliminatoire direk ñaar rek mooy am gagné la wala nga gagné kon loolu aussi kuy dem aussi na koy nay suuraale ñaari yi yëpp li nag mooy nga jàpp ne yaa man yëpp da ngay gagné rek loolu moom yàlla mayu ndax ndam mom yalla koy joxe kon ku mu ko jox aussi nañ accepter ak sportivité demaat wat rek bo ñewate nga mën ci am leneen kon dal euh, vraiment lool rek lañ ci doon euh, wax na programmation ma yi sax tax ko euh, xamna léegi école ubbi té équipe yi xaw nañu bëri est ce que baral ngeen convocation yi dem na réduire affaire yi de telle de sorte que ngeen mëna am am fourchette bi ngeen soxla ci waaw côté bobu mom vraiment teniroon danañ ci une réunion du comité directeur ndax bi gàllankoor yi amee aussi on s'est dit que bu ñu bëggee continuer ci dynamique bu ñu bëggoon demee rek mën na am euh, ñu xuus lool ci biir année scolaire bi te loolu aussi c'est pas souhaitable moo taxoon aussi euh, bu ñu dajee ci comité directeur ñu ne kon comme euh, pour bu nekk kenn moo waroon toog sauf poule A nga xam ne six la ñu ñaar ñoo ñu ne léegi comme affaire yi xat na nañu def léegi pour bu nekk deux qualifiés nous avons jouer du quart de finale directement euh, ci deux qualifié aussi réduire les délais pour au moins au lieu que nous xaar 48 heures pour convoquer les ASC nous convoquer 24 heures direct.